situation bu euh, président Ousmane Sonko donc euh, ki nga xamante ni ñoom ñooy des Pastef monsieur le secrétariat national euh, à la communication bu Pastef daal dinañuy def ab communiqué li ñuy wax ci communiqué bi nag ñu ngi artu ci information fausse information yi nga xamante ni ñu ngi génn jàpp nañ ni nañuy bàyyi xel ci canaux yi nga xamante ni ñoom teg nañu ko ngir dafa mën a jàllale bépp xibaar boo xam ne si nii dafa tukki dafa soxal seen njiit li muy Ousmane Sonko ñoom ñi ngi sàkku ci ñi nga xamante ni tey Euh, information euh, yi jëm ci Ousmane Sonko soxal na leen ñu daal di mën a bàyyi xel bu baax a li nga xamante ni moom moo di seen euh, communiqué yi nga xamante ni moom la ñuy génnee ñu ci ci communiqué bi gën nañu fësal wala ñëwaat nañ ci li nga xamante ni mooy ay démenti ci information yi nga xamante ni ñu ngi koy joxe ñu jàpp ne doon wax naan barricade bi ñu defoon kër Ousmane Sonko mooy blocus bi levé nañu ko ñoom jàpp nañ ni amul benn blocus boo xam ne si levé médiation bi ñu doon wax aussi nee nañu amul benn médiation mobilisation boo xam ne si nii entamé nañ ko bokk na ci li nga xamante ni moom moo di émissaire buy ay ndaw ndaw mu ne ndaw mi nga xamante ni ñu bëri ñu ngi doon wax ne ñu dañu ko envoyé fi nga xamante ñoom ñoo yore euh, nguur gi muy Macky Sall nee na amul benn émissaire boo xam ne si nii euh, envoyé nañu ko auprès du régime donc li nga xamante moom moo di euh, exfiltration motorisée bu Ousmane Sonko ndax ci week bi doon nañu wax ne ay information yi doon partagé ci réseaux sociaux ñu naan na ay moto yu ko daal di jël yóbbu ko fi nga xamante ni yi ko jëlee këram yóbbu ko ci destination boo xam ne si ni ñu ngi doon wax Rebeuss la waaye euh, ñu bari en tout cas loolu la ñu jàppoon mais ñoom ñëwaat nañu ci xibaar boobu daal di koy démentir mu nekk loo xam ne si ni euh, waa PASTEF nuy bureau. national à la communication ñoom ñoo ko euh, secrétariat national à la communication ñoom ñoo ko daal di xamle Moustapha mu nekk ay démenti yoo xam ne si nii ñoom ñëwaat nañ ci ah parce que euh, maanaam fausse information yi dafa euh, tàmbali woon di bëri ci réseaux sociaux yi ku nekk di partager ku nekk di bind mu nekk loo xam ne si nii dangay dem ba da nga naan man kan lay gëm mais ñoom ñëwaat nañu pour jëlaat les choses en main Euh, pour euh, mën a euh, maanaam joxewaat xibaar yi nga xamante ni moom la ñuy jàpp moom xibaar yi wér te wóor jëm ci seen leader Ousmane Sonko ñu tëj ko ci këram ci te kër góor gi boobu ba léegi mënut a génn mais manipulation bi bëri na trop. waaw manipulation bi bëri na mais xam nga nag euh, Pastef dañu commencé di dund li nga xamante ne euh, mooy le de la médaille. Euh, reversu médaille ci li nga xamante ne mooy boo amee force ci wàllum réseaux sociaux yi ak doole. saa da nga dem ba benn mbir am yoo xam ne daf lay rëcc. daf lay rëcc léegi su commencé di nag li ngay def mooy changer stratégie xool nag ngay def ba adopté wu ak moom. xam nga ki nga xamante ne force dafa nekk ci réseaux sociaux yi malheureusement da ngay am ay relais yoo xamante ne ñoom ñooy créer seen bopp. actuellement dafa am ñoo xamante ne information bu tukkee si ñoom nit ñi dañuy jàpp ne dëgg la dàmbale dañ naan diwa ko wax. Mm-hmm. diwa ko wax diwa ko wax léegi ci biir ñooñu tey jii am na ñoo xam ne nit mën na leen a manipuler. Mm-hmm. de personne de mauvaise foi mën na ñëw làqatu ci Mahfouz koo xamante ne le crédible na wala am na bés. ñu gis ko mu foto ak Ousmane Sonko wala jege na bureau politique bi rek. bu waxee dara rek am na fu mu ko teg bu waxee dara euh, taf taf da ngay gars yi commencé ko capture partage ko tasaare ko su ko defee mu laal noonu benn fake news boo xam ne day naaw. Mhm. léegi nag loolu ñoom pour ñu éviter ko il faut que ñu def beneen stratégie boo xam ne bu yees lay doon cest à def benn communication à la minute. par minute autant pour moi. communication par minute mooy lan cest euh, comme mbir mi toll na fenn dañ la koy wax euh, sa actuellement am na si yu mu nekk. nit ñaa ngi wax nit ñi xamuñu te dañuy wax la rumeur et le marché noir de l' mmh. rumeur li koy tax a jóg li koy may doole dëgg-dëgg mooy l' absence d' information. Mmh. su fekkente ni nit ki dafa toog nga tëj benn nit si benn néeg rek mu tëju si benn kër rek amuñu information ci moom ki nga xam ne moo ko fa dugal waxul ay jege ñaaleem waxuñu ay mbokkam waxuñu ñi taxaw di seetaan da gis ku jékki-jékki rek ne waa ji est ce di ko dóor ci biir. Mmh. faatu nee na ñu ngi dóor waaji si biir mm-hmm. affaire bi di daw ñu ne kan ma ko ñu ne Moustapha ñu ne kon mu ci buntu ba kon dañu dóor waaji si biir mm-hmm. nga toogaatu di kenn dégg ne ah jékki-jékki rek ne ah man waa ji est-ce nekkuñ di ko di ko neexal wala di ko baab di ko may xaalis bi ne noonu waa ji mi ngi dil si biir mhm. am bu fekkee amoon na benn jege ñaane bu ne ah, waa ji dugg na waaye ñi ngi waxtaan dara génn ko fa lépp lu am daana ko wax dañuy jël loolu jiital ko ci kanam donc comme quand quand il y a absence d'information totale rumeur dafay mën a meññ di jëm ci kaw ci suuf mais am na ci ñoom ñoo xamante ne comprendre nañ loolu. ba day gis à chaque fois bu 17h jotee wala 18h jot dafay def genre alerte mu ne lii moo bees lii ak lii ak lii moo am. Mhm. lii ak lii fii la information bi toll man je pense ku ci mel ni El Malick Ndiaye nga xam ne faire seen communication loolu la waroon di def. Mhm. comme par exemple chaque midi. mu def situation du jour. Mhm. midi mu def situation du jour deux points Ousmane Sonko mu ne militant arrêté mu ne tant militant arrêté mhm. militant libéré mu ne tant militant libéré tant que leur euh, situation suivi de la situation def point dem yoonam buñ demaatee ba vingt deux heures ñu ne ah, bulletin almaali génne sànni waat mhm. loolu su ko doon def tey ji ñëpp kalaa wax da nga naan ah, bu vingt jot ma ne naa déglu almaali lan moo am lu yees bu amee lu bees situation ñu Ousmane Sonko levé barricade am na lu ñu am na lu amee je pense que foofu la communication yi toll boo bëggee xeex ak rumeur parce que li ñu nekk di dund démb nii c'est parce que am na rumeur bu commencé di circuler mhm. am fu noonu non non Ousmane Sonko mi ngi këram dugg nañ fa ba sàngam def na nii def na nii def na nële comme situation bi dafa am toll foo xamante ne bataille communication waruñu koo perdre donc il faut que ñu nekk aux aguets maanaam euh, di def benn communication da ngay riposter foo toll. Mm-hmm. maanaam di anticiper li nga xamante ne euh, ñëwagul loolu dina bokk ci li nga xam ne daf leen dimbali parce que communication boobu mën nañ ci gagner lu ne mën nañ ci ñàkkee lu ne. Mm-hmm. Euh, loolu moo tax ma jàpp ne li ñu def démb c'est bien mais dafa war leen tamit yee ñu amal taxawaay tamit ci. ci ci ci li nga xamante ne mooy fi situation bi toll sinon bu ñu ko deful bu leen rëccee rek musiba mën naa dugg ci ñoom parce boo tollee ci yenn situation si la manipulation yi di am de mhm. yenn situation ba fa tolloo mhm. man damay def communiqué boo xamante ne ma ciy def yeewu askan wi sànni kële mhm. ñëw toog waxal ni lu ko neex sànni kële ñëw toog waxal ni lu ko sànni léegi est-ce toog rester ay bras croisés gis nga communication de crise je me tey ji Ousmane Sonko bi mu ko bi ñu ko jëlee ñàkkar gi noonu mu dugg fa nekk fa ñoom seen biir képp kuy communicant waroon na daje ñu def benn lël ban communication stratégie de communication de crise dañ war a dégager pour jàkkaarloo ak ñi nga xamante ne mooy li am c'est-à-dire information bi ñu bañ doon mu doon benn information mu doon benn communication boo xamante ne damay tontu rek mais damay anticiper c'est-à-dire di préparer sama militant su fekkente ne tey ji dama xam ne ñii lii lañ bëgg def lu ma liir damay xool militant bi nan la koy recevoir ak lan laa bëgg ci militant bi loolu mooy loolu loolu mooy réaction bi su fekkee dama ne bëgg préparer à chaque fois ñu wàcc xeex bi wàcc bi nan laa war a communiquer ak ñoom. ak information bi ñu waruñu koo jot ak information bi ci kii lañ ko war a jàngee loolu moo tax ma ne dafay laaj lël comme toll na fii ngeen waxtaanee ku tey spécialiste yoo xamante ne euh, ñoo ci nekk di ci xalaat mais malheureusement suñu parti lii seen jafe-jafe mooy Mahfouz day am parti am mm-hmm. ma ñëw jege ko comme maa ko gën a jege mu def ma secrétaire général parti bi wala mu def ma vice président ma toog ma topp ci wet bi mu seet benn mu jël umu nga xamante ne technicien la mun a kaay yor sama communication parce que yow kat yaa ngi ci métier bi kaa yor sama communication or dañ koy jàng mm. dañ koy jàng da ngay tey boo demee fu mel ni France dafa am ay ay agence ñoo avas mm. agence boo xamante ne du wàllum communication rek lay jublu wàllum communication kese kese kese lay jublu ñi ngi fàttaliku chaque jour damay jël euh, exemple di baiser empoisonné boobu nga xamante ne waa ji tennisman boobu euh, demoon euh, ñu jàppoon ko mu defoon mu drogué wu ba am ñu war koo daan bu mu gisee agence bi xam nga gars ko def dañ ko créer benn benn soirée dafa demoon soirée ba euh, daal di fay fóonante ak seen ndaw ndaw soosu moo nekkoon drogue bi loolu te wala drogue bi dugg ci biir yaram bi. Mhm. histoire boobu togg nañ ko jaay ko nit ñi te bi koy jaay dañ ne ko organe bi ngay dem sax dañ ko ko préparé ne ko l'équipe ngay dem kii ngay jàkkaar lool fii ngay defee sortie cest à lépp ñu teg ko ci gis nga waa bi mu demee ëllëg ko ñu dàq ko mais dañ ko aj quelques mois delloo si waat ko mm-hmm. te bu amuloon agence bu am doole bu ko encadré noonu mais carrière am fa lay jaaree dañ ko naan taf effacé mm-hmm. léegi dut bi teg nañ dut bi ñu naan non euh, léegi nag bi mu demee ñu commencé wër xale bu jigéen yi ban xale bu jigéen la fa nekkandaloon temps baa ngi commencé di dem mm-hmm. donc yëpp ay stratégie fort ci côté boobu noonu je pense que loolu dina leen ci dimbali. Hmm, Fatou sa sa sa ci communiqué bu euh, secrétariat euh, national euh, à la communication bu PASTEF dégg nga li ci Moustapha wax problème mu communication dafay dafay daal di dikkaat bu ñu xamee que ni Ousmane Sonko depuis ñu def ko blocus ki nga xamante ni moom moo di secrétaire national bu PASTEF mu ngi ci kaso bi dañu gis que nii daanaka muy Bassirou Diomaye Faye de ñi ci des ñoom El Malick daanaka. gisatuñu leen lu bari. Mm-hmm. même même information yi nga xam ne si nit ñi dañ ko doon soxla am amuñu woon fu ñu ko jëlee. Mm-hmm. mu nekk benn euh, loo xam ne si nii tey lu compliqué la ci ñoom ba tax na ay nit yeneen nit ñi ngi jóg di diffuser ay information ay fausse information euh, di euh, ñu mën ko tuddee manipulation yow ban jàkkan nga ci am. surtout Mahfouz mu nekk ci moment boo xam ne nit ñi dañoo bëgg a xam exactement Ousmane ko ci lu mu ne. Mm. ndax mi ngi këram ndax nekkul këram man saa yu ma yeewoo gis naa ay statut ah, Sonko jël nañ ko yóbbu nañ ko prison Kédougou sax dégg di naa ko fi ci ay statut mm. nit jël nañ ko fajar lañ ko jël xaaju guddi lañ ko jël yóbbu nañ ko Kédougou te loolu yëpp damay région rejoindre Moustapha rek mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom ñoo yore communication bu Pastef ñoom ñoo waroon liggéey si loolu situation bi mu tollee fii depuis le premier euh, juin ba ba ñu daanee Sonko ba tey ba ñu gisee ñu barricade buntu këram ba tey ñoom waroon nañ saa yu ñu xëyee defal nit ñi le point de la mm-hmm. situation comme ñun nit ñi xëyee di defal suñu internet le la rédaction mm-hmm. ñoom waroon lii ci ko defee kenn du posé wu la question des fois dugg di laajte waa ana Sonko mm-hmm. ci lu mu nekk donc loolu yëpp ñoom ñoo def faay ci seen communication bu fekkee liggéey nañ seen communication comme ni ñu ko war a defee euh, je pense que lii nii polémique bi di am am na ñoo xam ne ne dañoo leen a gis ñu yàgg di xeexal euh, Ousmane Sonko ñu yàgg di ko défendre bu ñu gisee ñu def seen benn page information lu ñu joxe rek nit ñi dañ ñaan loolu moo am. Mm-hmm. nga gis capture yi dox en 30 secondes nga gis mu wër ñëpp jot ci. Mm-hmm. bu ko defee dañ naan lii nii moo am alors que du ñu xam la exactement lan mooy situation bi gis nga bi ñu fi waxee levee blocus bi. Mm-hmm. fi mu fi mu yegg nit ñi fat fat affaire yi dugg na fu nekk ñëpp ne lever nañ ko ñi ne lever wuñ ko donc ñoom ñoo war a euh, liggéey ci ci boobu bu loolu léegi ci ci suñu millier dama leen di tamit di gën a joxoñaat baaraam ñoom tamit parce que ñoom il suffit ñu gis benn nit def benn poste bu si si page rek ñoom ñu jël ñu ne loolu moo am mm. relayé ko joxe ko nit ñi jot ci alors que fake news lay doon après man man man lu ma gën a lu may lu may gën a sóoraale mooy jël benn affaire def ko sama statut quelques minutes ma dugalaat fake news la loolu noonu. Mhm. franchement man je trouve que. wax waxeet mhm. wax loolu dafa soof quoi benn instant moo tax balaa ngay euh, publier dara yow fexeel nga am si lu la leer ba pare mhm. mais xëy rek naan ay jël nañ Ousmane Sonko yóbbu nañ ko Rëbës yóbbu nañ ko Kédougou mi ngi fee mi ngi fee mu nga kutaal yooyu noonu c'est des choses yoo xam ne manipulation yi tam côté bu nekk lay jugee loolu tamit franchement war nañ ñu ci dimbale ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ay professionnels nekk ci média yi. nañ ñu dimbale noonu tamit moom Sénégal fi mu ne tout le monde est journaliste. Mm-hmm. tout le monde est communicant statut yi la ñuy communiquer à travers yi ñoom ñi nga xam ne ñu ngi ci biir euh, yeewi askan bi sax mm-hmm. des fois ñoom tam dañuy jël ay yoo xamante ne duñ ko teg fenn. jël ko def ko seen statut dañuy xool seen statut yi lu bëri jël ko def ko seen statut quelques minutes après ñu def feek ñoom si seen bopp ñoo war di éviter loolu ñoom. Mm-hmm. dañu nekk organisation bu xam ne bu fekkee organiser wu nañ carrément. ñoom loolu waru leen a rëcc. dañoo war di xam ban situation la la la seen leader nekk. ci lan la nekk. dañ ko war di xam à chaque fois te loolu wax dëgg yàlla ñu yor communication Pastef ñoo liggéeyul côté boobu. d' accord Mohamed mm. euh, sa gis-gis ci communiqué bi nga xamante ni euh, waa Pastef def nañu ko indi ay leeral ci yenn ci ay fausses information yi ñuy circuler ci réseaux sociaux yi ñuy bàyyiloo xel euh, askan bi ñu ñu maanaam ñuy xool li nga xamante ni ay informations liy jóge ci maanaam canaux yi nga xamante ni ñoom teg nañu ko pour mën ci diffuser ay informations ginnaaw li nga xamante xamante ni moom mooy Ousmane Sonko situation bi mu nekk dañu gis. Euh, fu nekk la information di jógee jëm ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko comme ni ko Fatou waxoon ma nga Kédougou Ousmane Sonko jël si nañ ko démb ci guddi ay moto ko jël si euh, c'est-à-dire yooyu dafa dafa dafa bëri Moustapha ñëwaat na ci problème communication bi ñu nemmeeku ci waa Pastef bi ñu euh, jàppee seen seen leader bi jàpp ki nga xamante ni moom moo di secrétaire bi muy Bassirou Diomaye Faye ban gis-gis nga am ci communication communiqué boobu. bon d'abord est-ce que yaa naan canaux officiel est-ce que Pastef sax am na benn canal bu officiel boo mën a jële jàngee xibaar parce que ñoom seen propre média sax des fois lay induire à néer buñ la wax mm-hmm. dëgg en plus dañuy dugg ci xeexu mbedd bi de trop ba fu ñu lay yóbbu yow doo doo doo mën alors que luñ doon luñ jotee luñ mm-hmm. doon doyee benn médium boo xamante ne dafay dafay am identité politique mm-hmm. mooy xibaar yu wérte wóor yi génnee ci ci parti politique bu mu bokk mu boo xoolee médias yi nga xamante ne ñoom lañ gën a affilié wu souvent sax ñoom ñooy induire nit ñi ci ci parce que dañuy jàpp ne peut ñoom benn page bu comme ku mel ni man wala ku mel ni Moustapha di animé lu leen neex lañ ci xëppam de loolu mooy tax souvent nag naan est-ce que am nañ ay ay yu officiels yoo xamante ne mën nga fa jëlee xibaar yu wér. te communiqué yi la ñuy wax ah. communiqué yi tamit communiqué yi ñuy def mais si ci comme digital bi comme ñoom niñ ci niñ ci xam ne mhm. Pastef ko moom. Mhm. benn site internet boo xam ne si. voilà fa la joxe seen mais cest à yooyu amul amuñ benn canal bu officiel sinon Ousmane Sonko moo léegi dafa off depuis ñu téye Ousmane Sonko euh, dafay compliqué tamit. Ah. même aussi seen communiqué yi sax souvent cellules yi fu nekk lay communiqué di génne des fois dem ba ci noté ay fautes yoo xamante ne grave ba pare nga ne bëgg nga convaincre rumeur yi génn xam naa dañoo namm waaj rek parce que gëñ na wax ak gëñ nañu dégg activité souvent moo tax ñu koy def mais nañu fexe ba organiser seen bopp seen média wala seen médium bi nga xamante am am nañ ko muy identifié ak Pastef muy fexe aussi di génne xibaar yu wér ba ñu bokk rek ci xeexu mbedd bi mm-hmm. loolu bokk na ci li leen di gën a gaañ et aussi lii day wane ne

image yi ci mhm. ni mu gën a rafete Oumou Ndiaye ak Dóor ñoom ñoo nekk ci technique bi ñu leen di ñi ci profité di leen di leen jaajëfal nga ni la waaw li ma li ma li ma burux dalu fi ma bëggoon a buruxlu rek mooy euh, mooy li li Mouhamed wax rek damay damay damay rebondir foofu ko c'est-à-dire mhm. ñoom seen média yi xam nga seen même média nga xamante ne moom la am sax te mu waroon ñu wax euh, dëgg wax ñu information bi dañuy am jafe-jafe man je ne peux pas comprendre jot na média boo xam dafay juum. ci poste mhm. page maître Bamba Cissé ak comme dafa créé poste dafa noonu. Mhm. ak jékki-jékki sànni benn information ni ni skis après.

ma jàpp na loolu benn jafe-jafe bu jiitu la beneen bi ci topp mooy euh, Mohamed brossé na ko léegi Pastef euh, sans Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye mais il faut comprendre que dafa dañoo nekk si benn situation bu metti danga koy misaale ci benn xale boo xam ne dafa commencé dox di dem kii romb ko sànni ko xeer